dalee nag jàmm bokk na ci li ñu sopp lool ci loppitaal yi muy say soo amee jàngoro dem fa ñu dalal sa xel saytu la te jox la paj gu mucc ayib waaye mel na ni jamono ji mbir mu nu mel doon na lu tumuranke lool ci réew mi daanaka xiiroo ak ŋaayoo la ñuy nemmeeku ci l'hôpital yooyu le bu weesoo melokaan bu doy waar bu barab yooyu le am ak tumurankeeg jumtukaay yu ñuy faral di jëfandikoo coow lu rëy danay faral di am ci diggante docteur yi ak way tawat kenn ci ñoom di wuyoo ci turu Assane Diagne di ko ñaawlu ak a jooytu ànd ak naqar gu mu am ci ñàkk gu mu ñàkk seexam bii di Ousseynou Diagne moom Assane jébbal na ab plainte ngir yóbbu ci yoon bépp docteur bu taq ci faatug seexam boobule. ndax jàpp na ni bokk na ci li ko faat mooy ya ñàkk farlu gu yenn ci docteur yi am ak sàggante gu mu nemmeeku ci l'hôpital yi naqara ak tiis méttita ak njàqare gu mu am ci faatuk seexam bi tax na ba fi mu toll nii mu ngi wër ay baat ak ay kàddu yu mën a leeral anam gi nga xamante ne ci la seexam mboobu di nu génnee àdduna ci fàttali ci bésub ñaar fukk ak juróom ñaar ci weerum octobre bi ñu weesu ci la seexam boobu di Ousseynou jëloon ab njaganjaay bi ñu demee ba ca booru Kër Massar ca la njaganjaay bi defoon ab accident ngir mbëkkante gu mu mbëkkante woon ak benn ci camion militaire yi accident ba tiisoon na lool deret ji di ngan fu ne doomu aadama yu bari am ci ay gaañu gaañu yu metti moom Ousseynou mu bokkoon ci ñi amoon gaañu gaañu yooyu Assane di nettali ci làmmiñam mbir mi nu mu demee ak ba ñu ñëwee lu ñu fa fekk ci bi ñu ñëwee fekk ko mu tëdd tiitaange jàpp leen lool ndax anam gi mu nekkee woon tax ñu ne nañ ko yóbbu ci lu mu gaaw gaaw ca urgence ca l'hôpital bu Grand Yoff waaye bu ñu sukkandikoo ci kàddu bu Assane gi mbégteel gu njëkk gu ñu am ca l'hôpital bu Grand boobu boobule mooy ba ñu yegsee ak seen tiitaange ànd ak gaañu gaañu yu métti yi nga xamante moom la frère am bi amoon muy ay damm damm yu bari taxul benn yoon ñoom médecin yi mbala docteur yi daal di koy jël en charge ci kàddu yu diis loolu ak xol bu naqari Assane di ci nettali di wax ne sama seex bi su génnee àdduna bokk na ci lu ëpp ci li ko faat mooy ñàkk a farlu gi am ci docteur yi ak càggante gi am ci hôpital yi tey muy xam xamle ne moom Assane ne ginnaaw tàkkusaan ba xaaju guddi trois heures du matin ñu ngi wër hôpital yu mag yëpp ngir am saafara damm damm ak nàcc gu feeram boobu doon nàcc waaye daanaka hôpital bu ñu dem rek dañ leen di négliger kenn du leen jël en charge muy xam la ne ci nii ci la seexam bi di Ousseynou daal di ñàkkee bakkanam naqar gu mu am ci càggante ak ñàkk a gu ko hôpital yi ñàkk a tax na ba mu ne day topp mbir mi ca yoon tax na mu déposer ab plainte ngir képp koo xamante ne tax nga ci mbir mi ñu joxoñ la baaraamu tuuma te teg la ay daan ñu ànd ak yéen ci benn vidéo ngir taataan ak yéen mboolem lu rott comme xibaar ci mbir mi ana nan la demee ban naqar la ci am asalaamaaleykum waa Sénégal maa leen di nuyu ku ci ne sa sant waa tey nag dama am lu ma metti lu may jooy di ko kaas ci Sénégal euh, rawatina ci hôpitaux yi hôpital yëpp ci hôpital yi waaw parce que le 27 bi passé le 27 octobre bi passé dimanche. Euh, suma seex dafa def accident croisement Kër Massar ci Njaga Njaay benn camion militaire moo leen bëkk moom yàlla def mu jëlee ci fracture ñaari tànk yi waaw bu damm metti sax boole ci tànk yi xotteeku kon loolu metti na ambulance nag biñ ñëwee ñu jël koor bi daanaka ay 18 heures lañ koor bi ci oto bi jubali hôpital yi biñ demee ci CTO lañ njëkkee biñ demee CTO waa CTO xool ko ñu ne jël ay carton bande defar tànk yi band ko yabal leen principal ñu dem principal bi ñu demee principal ñu ñëw ñu ne amuñu place ñu ne amuñu place biñ naa amuñu place ñu nekk fa jàppal bàyyil médecin bi ki ñu wax ni moom monte ci guddi gi mi ngi urgence ñu ne ñu dañu dugg urgence ñu dugg urgence waaji nañu xaaral leen chef bi ñëw bu chef bi waxee ñu jël ko rek ñu jël ko suma benn mag wootee foofu sama mag bi di woote nag nanguwuñ ko jël bi mu wootee laajte benn médecin mu ne ñu laajte leen diw ñu ñëw laajte xaw ma nag jóob daal ñu ne ñu nekku fi mu woowaat mu woowaat ñu téléphone ñu ne ko ah kooku nee nañ nekku fi moom tamit xaw ma kan la woo noonu ba ñu jox ko tur mu woowaat ñu jox ñu tur bi biñ ñëwee laajte tur boobu waaji nañu maa ngi nii ñu ne ko diw moo ñu boole yow rakkam moo def sax bi pour ngeen jël waaji nañu waa chef bi moom ngi ne moom su waxee rek ñu jël ko ñu ñëw ni chef yaay diw mu ni waa maay diw ñu ne ko waa ñu de dañu indi fi benn kii bu def sax mën nañu waaw mais place amul sama yaay naan ne ko ah sëñ bi tey nga maa dimbali nga jël ko sama doom la sonn na mu laa ne ko meer fii ñu fi ñëw ñëpp a sonn sama yaay ne ko waa xam naa loolu waaye danga may dimbali rek kee dafa sonn kaay nga xool ko dimbali ma rek sarax ma ngir yàlla laa war a suul sama yaay katamu ko jàpp tànk yi man tamit sama xol jeex na te suma yaay mag la yërëm naa ko mais tamit yërëm naa sama seex bi toog ci ambulance bi depuis 18 heures. ba vingt une heure vingt heures vingt une heure vingt deux heures presque médecin xoolu ko laalu ñu wax waa ji ne du ko jël man ne ko waa mais grand mën naa laa ñaan benn affaire fekk booba man li ma ko bëggoon wax mooy que ni xoolal moo ko dimbalee pour douleur bi mën a wàññeeku waa na ma man daal je n'ai rien à dire avec toi ma ne ko sëñ bi looy wax nii mu ne man aw ma dara lu may wax ak yow li may wax wax naa ko pare. mu ne ko waa mais nga déglu ma nga déglu ma tuuti xamoo lu ma lay doyee de xamoo lu ma la bëgg wax mu ne man daal wax naa li ma lay wax wax naa li ma la aw ma dara lu may wax ak yow ne ko nag mais sëñ bi yow da nga war a xam ne yow fii tegoo fi sa bopp yow fii dañ la fi teg pour ngay faj doomu aadama yi chaque fin du mois dañ lay fay xaalis bu weex tàll may may mayewoo li ngay faj du gratuit li ngay liggéey fii du gratuit kii da nga ko war a faj yow danga war a wax man par force mu ne ma non du wax ak yow aw ma lu may wax ak yow man nar a xeex ak moom foofu su ma yaay tee woo suma copain yi ma àndaloon ñu jàpp ma génnee ma ci biti ma génn toog ñu defal ma ma ñëw xool solution met sapeur bi ci boppam moo ñu ne da ngeen di jéem xool benn clinique privée yi ngeen ñu yóbbu ko fa sama benn copain taal oto ñu yéeg ci dem benn clinique privée bu nekk foofu biir Dakar xaw ma clinique mat leen la tur bi laa jàppul quoi ñu ne ñu bu ngeen amee un million daal ñu laal ko suma copain bi ne ma waaw ah, mais mën naa teg deux cent cinquante mille ci taabal ji waaj nañu non il faut un million te wax dëgg fa yàlla man mi seexam man yor ma un million suma benn rakk yorul un million waaw gannaaw yàlla suñu liggéey ga yaakaaruñ keneen ku dul yàlla waaw ci loolu ñu dellusiwaat principal ba léegi médecin yi nanguwuñ ko laal ñu ne ñu dem leen Dantec ñu dem Dantec waa danteek ni ñoom seen urgence euh, dañ koy defaraat dafa am ay paan dañuy def ay réglage dañuy defaraat yooyu daal di jël benn pikiir morphine xaw ma daal lañ ko defal ci butéel yi bàyyiwaat ñu ñu ne ñu dem leen Fann ñu dem Fann tamit la Fann tamit euh, Fann nañu la même soos par la suite lañ dem fële gendarmerie xaw ma fan daal ñu yabal ñu kii non police centrale lañ dem ñu yabal ñu benn gendarmerie bu nekk foofu ci ginnaaw xaw ma conk la xaw biñ demee waaj ñu fekk ñu kenn conk benn waay dong lañ fekk waa ji nañu woote ñu ne ñu léegi da dem bu Kër Massar bi ñu retourné di dem Kër masaar ci autoroute à bi lañ jaar ak ambulance bi foofu daal la sama seex wàccee liggéey ci la gaañu ci autoroute à bi la gaañoo sappoor yi nag def nañ seen kéemtalaay kattan pour sauver ko mais yàlla nanguwul yàlla nanguwul mu nekk nag loo nga xamante ni metti na ma trop metti na ma trop parce que dama ne woon damay def plainte dama ne woon damay def plant waaw dama ni damay plainte surtout principal parce que médecin boobu médecin boobu li muy jaay nekkul quoi nekkul amul moom du boppam moo ko fi du nguuraam moo ko fi teg ndax am na ñu ko ëpp ay diplôme fii ci senegal te liggéeyuñu kon moom suñ ko jëlee muy liggéey dafa war a respecté doomu aadama yi waaw dafa war a respecté doomu aadama yi parce que kooku respecté wul doomu adama kooku warul doon médecin waruñu ko jël ci benn hôpital ndax ku nanguwul faj malaat kooku yow waruñu la jël ngay liggéey ndax doo nit ndax nit du seetaan doom moroomu doomu aadamaam moroomu jullitam muy muy faatu noonu chrétiens yi sax dañuy dimbalante tubaab yi sax gëmuñu yàlla gëmuñu yoon mais dañuy dimbalante te dañoo fonk doomu aadama mais kon pourquoi pas Sénégal ni ñoom respecté wuñ doomu aadama lan moo waral loolu lan moo waral loolu bu fekkee suñu gouvernement yi ñoom ay yaafus la nan ñu ko wax nañ ñu ko wax Macky Sall bu fekkee réew mbi nii lay doxee mu wax nu bu fekkee askan wi ñoo ko fi tax a toog askan wi lay xeexal kon na wax ci lii médecin yi nii nang bañ a faj doomu aadama yi nañ ci wax bu fekkee moom il est le père de de la nation bu fekkee dëgg la na ci wax man man voteelu ma Macky Sall mais tamit mënu ko bañ suma président la mais dama ne bu fekkee moom réew nii lay doxee moom na na na nañu abal bu mu doon président parce que ay médecins yoo xam ne kenn nangu cee def sa liggéey amul fenn Sénégal rek la am dañ koy wax te dee lii dafa neexul dafa metti bu doon doomu Macky Sall la daal wala jarbaatam dañ koy faj dañ koy faj Sénégal nañu xoolaat li ñuy def bu baax nañ ko xoolaat man nag dinaa def sama plainte dinaa def sama plante waaw lu ma yoon may ma jël bu fekkee sax Sénégal am na yoon waaw waaw dinaa def sama plainte parce que tamit première fautif militaire yi waruñoo mbëkk Ndiaga bu doy noonu mu am ay blessé ay mort ñu bàyyi leen noonu autant que pourquoi pas ñoom boolewuñ leen ak ku ci ne ñu boole la ak benn militaire mu yóbbu la benn. hôpital bu demee ñu mën laa jël par force loolu tamit lu jar a wax la loolu lu jar a wax la du hôpitaux yi rek mais ñi def soog bi seen bopp ñoom seen bopp am nañ ci part de responsabilité am nañ ci part de responsabilité waaw parce que li neexul un jeune boo nga xamante ni mi ngi gañee laay fam honnêtement sàccul agressé wul waaw day xëy dem daani dooleem di ci dimbali yaayam di ci dimbali ay rakkam ak i njabootam du xëy un bon jour def soog benn hôpital nangu ko jël mais lan la wala bu fekkee dañoo bëgg dañ ko jàppee bëgg a def sacrifice non bu boobaa dama leen di tam ay dëmm waaw dama leen di tam dëmm waaw te li may wax man ragal ko te du ma ci waaw gannaaw yàlla yaakaaruma kenn ku dul sëriñ Tuubaa waaw li may wax nii nag daf ma metti moo tax ma koy wax dama koy kaas dafa ma dafa ma metti dama koy wax te kum daloon tamit danga ko dalay metti parce que suma seex la 39 ans maa moom ñu koy nekk ci live bi lu ne ma koy def mu ma ci génnee lu ne mu koy def ma ko ci génnee kon tey bu xëyee tey def benn choc hôpital benn hôpital nangu ko jël ça me fait mal daf may metti daf may metti képp ku seetaan ojo bii nag wala nga dégg ko vidéo bi nga seetaan ko bu fekkee yaakaar nga ni man nekkuma ci dëgg wax ma bu fekkee maa nekk ci dëgg tamit nga wax ma parce que lii neexul dafa metti dafa metti xale bu ndaw ñu sacrifier sa life ah sàgganee la ba dee ci koo xamante ni fi mu tëdd mi ngi bëgg a dee ak mettit mais terewul mi ngi naan mi ngi dëgër mi ngi naan médecin yi dimbal leen ma li laa war a suul ngeen dakk su may mettit bi arrêté kon kooku buñ ko dimbali woon amaana sax mu mu mu rëcc même bu dee bu dee ah. dundaat deux jours sax mu dundaat deux jours ñu xam ne hôpitaux yi def nañ seen kéemtalaay kàttan mais kenn nangu ko cee laal kenn kenn kenn nangu ko cee laal mais dafa metti c'est vraiment honteux barke sëñ Bamba metti na metti na ba ci kanam yàlla metti na te lii dañ ci war a jóg lii dañ ci war a jóg Sénégal dañ ci war a jóg lii dañ ko war a xeex nit ñi médecins yi dañu war a xam teguñu fi seen bopp teguñu fi seen bopp te du hôpital yu ndaw rek de hôpital yëpp la hôpital yëpp la waaw mus naa for benn taalibe bu def sob ci ci tali bi ma yóbbu ko Dominique ba ñu demee Dominique dama ñëw ñu ne ma waa Dominique dañoo grève parce que boobu man yor ma xaalis bu pour faj taalibe bi mais li wax nii am naa témoin am na benn paa boo nga xamante ni ñoo àndoon ñoo fi ñuy liggéeyee marché taalibe boobu bi ma fëggee bureau bi. ñu ngi ci biir di waxtaan bi ma fëggee faale wuñ ma ma fëgg correctement faale wuñ ma mais bi ma xàccee ku dóor ci bunt bi dañoo jóg ibbu bunt bi ma mais man leen yéen mais kii yéen lan la mais yéen neen yaakaar yéen a fi teg seen bopp mais yéen teguleen fi seen bopp ah waaw ñu ne ma lan la man leen taalibe bi dafa def sob ma indi ko fii ñu indi ko fii ñu ne ma naa ko indi fii pour euh, affaire ndimbal ndimbal faj ko mën ko faj gratuit waaj na ma non dañoo grève man ne ko dana grève kon lu ngeen di def fii lu ngeen di toog fii di waxtaan ñibbi leen seen kër yi wala ngeen génn ci biti yoon ay drapeau ay ay kii eh, bande rouge waa ji nag foofu sama xol jeex mujj gi ma génn ak taalibe bi lam sam poos faj taalibe bi mais Sénégal li fi am amul fenn fii li lii senegal fii la am senegal fii la am te lu ñu war a kaas la te nekkul lu ma dund benn yoon ñaari yoon dama ko dund dund ko dund ko ci hôpital yi am na si koo xamante ni su da doon xeex ak sama benn copain ñu dóor ko copain bi dóor ko mu toj ñu yóbbu ko Dominique ba ma demee Dominique bi ma jëndee ticket mais passement yi Dominique ñoo ko war a def mais femme bi daf ma doon jënduloo ay garab yoo nga xamante ne nii naan ma ay mille lay jarab yi bi ma demee ci pharmacie bi ay mille francs lañ may wax la garab gi jar barki Seydina Mohamed te li may wax ragal ma ko hôpital Dominique ci boppam laa la wax. sagam hôpital Dominique mooy def loolu waxantuma la ay principal non hôpital yi li fa am amul fenn li fa am amul fenn te lii dañ ci war a jóg gouvernement bi dafa te war a jóg jël ci ay matuwaay bu fekkee moom nee na askan bi moo ko fi tax taxaw moo ko tax a toog fii dafa war a dimbale askan bi ko lii dañ ci war a jóg buñ ko bàyyee ni senegal du dem ndaw yee ñëpp ay àndandoo dee ku amul xaalis donc dangay dee ku am xaalis ay dund kon dañ ci war a jóg lii du yoon c'est pas maa ngi sant ñëpp nag di gërëm ñëpp ku gis vidéo bi nga jottali ko sa moroom